mu ne al umratu sunnatun fi l umri marratan wa arkaanuha arkaanul hajj maa adal wuquufi mu ne umra sunna la fi l umri si dundu marratan benn yoon wa arkaanuha ponk ya nag arkaanul hajj mooy ponk ak ji nga jàngo ci ginnaaw ne ñeent la anniyatu mooy armal wër kaaba gi dox soo ak marwa ak taxaw araf mu ne umra tamit yooyu mooy ponkam maa adal wuquuf ba mu des taxaw araf moom amul si umra kon moom ñetti ñetti ñetti ponk la am armal tawaaf dox soo ak marwa mu jeex wala xaañal la ko moom umra miqaataani ñaari miq makaani yun miqam makaani yun koju bërëb mooy miqa boo xam ne place la mu ne waxu moom miqaatul xajj mooy miqa aj waaw sooy aj miqa yi nga xamante ne si ngay almale sooy umra miqa yooyu ngay almale illa fi xaqi man derek aqu ki nga xamante ne huwa moom bi makka mi ngi makka fa innahu nag moom yuxramu day almale min al xilli si xilli mooy da ngay da ngay génn màkk tuuti da ngay génn xurum génn si xilli gi foo ngay almale doo ko dugg si waaw wal afdalu li gën nag an yuxram mooy mu almale min al jiraani si jiraani ñeneen li gën nag mooy mu almale jiraani waaw li'timaadi sallallahu alayhi wa sallam naa fi dil qaada waaw mu ne wa zamaniyun ak miqa ko jamono wa zamaniyun ak ko jamono waaw mooy wax na la ñaari miqa la am makaaniyun ak zamani mu ne woo moom jamiu ayaami sana mooy mboolem fanu at bi at bi yëpp jamono ju la jamono jamono ju la neex ci at bi mën nga ci umra bokkul ak nga xamante ne dafa am jamono buñ ko jagleel mooy zul qaada zul xijj ak ak shawwal shawwal zul qaada ak zul xijj def weer yooyu bokkul ko umra nag moom at bi yëpp waxtu bu la neexee da mën ko ci def wasiwatul ihraam yi meloo armal bihaa ci umra mu ne min istihbaabil gusti waaw bokk na ci sopp na nga sangu wa tanrifi ak set wama ak li nga xamante ne yalbasuhu dina ko sol wama ak li nga xamante ne yaxrum dina araam ali ci moom men libaas yi koddaay wa fii bi ak gëtt wa gay daali ak ndog yooyu mu nekkal xaj di ka aj ni la waxoon ni ngay sangoo say say almal aj ak nooy setoo dini say sugg sugóob yooyu léegi say wee ak yére yi nga xamante ne moom la waxoon moom moo dagan nga sol ko ay yi nga xam ne dafa araam nga sol ko ah ak parfum yi ak gët yi nga waxoon ne soo xasee ba amaat daganul nga laal ko ak diwu bopp yeeg yëpp soo armalee umra te bi yëpp lay araam mu ne wayu ko si wéef na takraaruha baamu umra fi la amil waaxidi ci benn at mu ne nga baamu umra ci benn at nga baamu ko ci ñaar yoon mooy loolu duñ ko si waaw wa tafsul dina yàq moom umra bi dina ci booloo wa ma fi maanaahu ak yu nekk ci maanaa booloo ni ki foon foonante bi dama noonu ida waqaa nem tàddina qabla inqidaai arkaaniha lu njëkk jeexu ponk ya lu njëkk matu ponk ya xaatimatun lii ak mottali la ida xaraja nem génn na al insaanu doomu aadama min makka ci makka bàyyi ko makka fal takuna nekk niyatuhu yéeneem wa azimatuhu ak dogom yëpp na nekk ziyaratu ziyarata rasuli ziyarata nabi sallallahu alayhi wa sallam yéeneem ak dogom yëpp na nekk ci ziyaara yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yonent bi nee na man xajja walam yazurni faqad jafani mu ne ko ajta ziyaara boobu beccangal nga ma waaw waxaat ne man zaarani baada mawti ak annama zaarani fi xayaati mu ne ko ma ziyaare ginnaaw ma faatoo man nga ni ziyaare nga ba ma dund kon is ngir is ndax ziyaaratuhu ziyaare moom sallallahu alayhi wa sallam sunnatun sunna la mujmaun alayha bu borom xam-xam yépp dëppoo waaw wa fadilatun gëneel la muraqabun gu ñu xemmem fii haa si moom mu ne fa ida amahu nem jublu na ko mu ne fa ida amahu nem jublu na ko azzaa'il aji ziyaare laa yushriku bu mu bokkaale maahu ànd ak yonent bi gayruhu keneen waaw mu ne yonent bi soo demee ba jublu ko ba ko ziyaare nag na nga xam ne moo féete ñëpp kaw ah ñëpp suufam la nekk bul ko dendale kenn bul ko bokkaale kenn ci lenn ndax lu waaye am lu mën a doon yonent bi moo la ko tëbb ndax li annahu li annahu ngir moom alayhi yàlla nekk ci moom asalaatu wasalaam matbuun ku ñuy topp la ay laa taabiun di kuy topp yonent bi ah ku ñuy topp la waaye moom nekkul kuy topp moom la yàlla def ni mu bëgg mu ne na ko ñëpp roy na ko ñëpp topp waaw mu ne way saxabu waaw kon bokk na bokk na bokk na li ñu fa topp ngay bëri loo julli ci moom jamono ju nekk soo dox soo taxawee soo toogee ak mboolem njiit yi ngay julli ci moom waaw way saxabu soppeef na an yanzila mu wàcc xaarijal marina ci biti dëkk bi nga bëgg soo ñëw marina tamit nga nga bañ a nga bañ a wàcc ci biir dëkk bi nga wàcc ci biti dëkk bi waaw sangu ba set doog a dugg si dégg nga waaye tataxara mu laabu mu laablu waaye tatayyaba mu mu gëttu wayal ba samu sol ahsana siyaabi yi dañ daa rafet ci koddaayam su may daa daxal topp ñoom dugg na almasjid jàkka ja bari am na tàmbale bi rukkoo ay sii rukkoo mooy na juróom ñaar rakka fekkee waxtu gu dagan naafile la in kaay ne nekk na waxtu waxtu goo xamante ne tey jii dina dagan fii si moom ak naafile ci naafile wa illaa bu fekkee dafaa ñëw si waxtu gu dagan naafile comme ginnaaw tàkkusaan bari am na doole bil xabri si bil xabri shérif si xabru ku tedd ka mu yonent bi mu ne walaayal te seq bu mu tafa nag bii si xabru ga na ko dàmm tuuti waaye sat biru mu dëdd al xibla xibla way sax bi la mu jublu al xabru sharif yi xabru ku tedd ga waaw da ngay dëgg xibla jublu xabru yonent ndax xabru yonent bi moo gën a màgg xibla waaw ndax yonent bi xibla si daraja si daraja yonent bi la ko yàlla amalee waaw wa yaqulu mu wax assalaamu aleyk jàmm yàlla nekk si yow ayuha nabiyu yow bi la yonent wa rahmatullahi wa barakatuhu su may tanaxaa topp mu dandu mu mu dandu an yaminihi si côté ndeyjooram naxwa ziraain lu tollu xasam lu tollu xasam su waxe assalaamu aleykum ah xasam un mètre rek waaw mu xasam xasam ñaari xasam ñaari xasam mooy un mètre nga dan nga dan lu toll ne xasab na assalaamu alayka ya ababakar siddiq su may tana xaar topp mu dandu ilal yamin su ko sa ndeyjooram adar ba tey naxwa ziraain lu tolloo xasab ah fa yaqul ma assalaamu mucc alayka yaa na nekk yow yaa aba xafs umar al faruq mu ne wayu sallimu na na na def na def taslim yi kullama daxala saa yu duggee wa xaree bu génn saa yu duggee masidu yonent bi na nga def lii kullama daxala wa xaree baax na def mu ne baabu saabi li may buntu juróom-ñaareel fil udhiyati ci tabaski wala aqiqati ak ngénte wa dabxi ak ren bi naka la ñuy ngénte naka la ñuy naka la ñuy tabaski ak naka la ñuy ngénte ak naka la ñuy rende amal udhiyati daal tabaski fa yemoom maa yu taqarrabu mooy li ñuy jaamoo yàlla bi zakaati yi si ren dem mina na am si jur yi yowmal adaha bi si tabaski wa taaliyi bi ak ñaari bis si ko niñ waaw mooy kon tabaski nga dégg si ñetti fan la mu ne wa yemoom sunnatun sunna la al mustati si ki ko man alxur yi kay gor al muslim kay jullit kabiran moo xam mag la kaana nekk aw sagiran wala ndaw zakar moo xam góor la unsan mbaa jigéen muqiman moo xam ku saxala si dëkk bi aw musaafir mbaa mu nekk kuy tukki gayru xajjin mu bañ a nekk kuy aj nag bi minan si minan an nafsihi mu war ko nag an nafsihi si boppam wa aman ak képp koo xam mu tabaski nag an nafsihi si boppam tabaski gi noo koy leen di yéene sa bopp aman ak képp koo xamante ne talzamuhu war na ko war na la nafxatuhu dundam kal awlaad ni ki say doom wal aba ak say baay al fuqara ñi di way ñàkk sa baay yi nga xamante ne am nañu dina dawsi nga yéene leen surtout ba si ñun wa waxtu waxaa waxtu ba nag baax na nax imaam mooy ginnaaw loolu imaam kon soo rendee lu njëkk imaam dina ñu amoo tabaski yàpp nga am min yow min nax ci bisi laj aman dabaxaa ko ren xablahu lu njëkk imaam di ren lën yi bi hii ren dem googu du ko doy waman képp koo xamante ne waman ñi nga xamante ne laa imaam dit imaam lahum di leen ñeel falay taxaraw nan xerawlu salaatu aqrabi aqrabil a'immati julli gën jaa jege si njiit ilayhim si ñoom wa naxraw ak lojam waaw léegi loolu nag jamono ji amul bu njëkk la amoon nga xamante ne am dëkk yoo xamante ne dañuy dañuy sori dëkk yi am imaam ah boobaa ñooñu ñoo bëgg yabal ndaw ah mu teewee rend imaam bi imaam rend mu ñëw wax leen ku ci doogu na nga rend waaw mu ne waxal li waxal li muraadi li ñu namm nag biir imaam si imaam imaamu salaat mooy imaam imaam julli ci imaam imaam bi jiite julli juróom waaw awil abbaasi wala imaamul abbaasi waaw waaw lil iid al mustaxlif min al abbaasi doo gay te am imaamu abbaasi mooy nguur gi day am ñu ñu am seen imaam bopp ñu ñu tuddee imaam Abbas mais ba xam imaam bi jiite julli lañu waxee imaam boobu mën a xaw daa noonu ñaari wax am na si ñu wuti waman rawa xakku ren na xable yoomi nax li ndëkk bisu laj ba aw yoomu nax wa mbaa sax bisu laj ba la rendi waaye baxdal fajar ginnaaw fajar la rendi xable tulu ishamsi ñu njëkk xaru fajar ñu njëkk xaru jant bi ñu njëkk fenk jant bi kon lañu ji ren ga du ko doy wa aqallu ma gën jaa néew si li nga xamante ne yu jisi u dina doy fi baxaya ci tabaski mel asnaani si at ajzao mooy bu foq ñoo ba ni si xar wal maaz ak béy waxu moom soo ko xamul ibnu sana mooy doomu at wa tani tani yu min al baqari si nag waxuma maa daxala mooy bu dugg fi sanati raja si atum ñeenteelam wa tani yu bu atum min al ibli si gëléem waxuma maa awfa mooy bi matal xam si suñu juróom at wa daxala mu dugg fi saari si juróom benneel atam wayu taqaa def na ko defi baxaya si tabaski wala hadaya adhabi al uyub aybi fala yujur day fa baxaya si tabaski wala hadaya adhabi awra awra bu pat wa hiya moom allati mooy gilam bi nga xamante ne wala gàtt bi nga xamante ne zahaba dem na nuuru ihda ayni xaali benn si leeru ñaari bët yi waaw wala maridat ñu jaagan bu feebar maradan feebar bay nan bu biir ñu jaagan ku feebar feebar boo xamante ne dafa dafa biir ba ku ko gis xam ne ko def feebar wala ajan du jaagan bu bu lagge ajan lagge bay nan bu biir wala ajsaan du jaagan bu loof wa yowm allati mooy gileen bi nga xamante ne wala gàtt bi nga xamante ne la chahma den nebboon fi hadi nekk ci moom wa qiila am nañu hiya moom allati mooy ba nga xamante ne laa mu ko déet yokku fi urbaani hadi nekk ci yàq wala mashquqatu uñu jaagan mu xam nopp ga illa an yakun la fa nekk achaqu xar-xar yi def leen aji néew woo moom asturutu mooy suruj bi wa kadalika noon xatu uñu dog nopp wala juudu doy illa an yakun lu dafa nekk yasiran di dog di dog gu néew wa kadalika ni ko noon zahabu aksari dem bi demuk li ëpp si genn gi fekkee genn gi li ëpp da see dem boobaa xar ba doyu wa kadalika ni ko noon maksuyatul xam bi jaagin bu ñu bu ñu bu ñu damm nopp béjjën gi illam yabara a nem wérul te in bëri a nem wér na nag ak ja doy na
Bashir.
Aleykum wa rahmatulah.